accélérer notre émergence fii si njaaram tey ñaari point rek la fi wax bu njëkk bi ginnaaw bu ma nuyoo kilifa diine yi ndax Jurbel tam dëkku Xaadimu Rasuul la kon jërëjëfee Sëriñ Tuuba jërëjëfee Cheikh Ahmad Bamba njaareem diine la waaye dëkkul liggéey liggéey la maa ngi nuyu commerçant du marché Ndiabat du marché Ndoumbe Diop le marché Ndoumbe Diop que je suis en train de reconstruire à neuf dama bëggoon wax ak diaspora bi depuis Diourbel la diaspora sénégalaise la quinzième région du Sénégal diaspora boo xam ni seen i doom ñoo jóg dem ci réew daan doole ñu leen andi ci réew mi mat na ñaari yoon appui aide publique au développement du Sénégal di jot deux fois le public au développement dans la gouvernance ci gouvernement bi assemblée nationale avec quinze députés élus par eux et parmi eux mais diaspora fas yéene na les conditions de la création d'une banque dédiée à la diaspora pour le financement de leurs habitants pour le financement de leur activité de retour sama sago un jour campagne de la en Afrique en Europe en Amérique en Asie waaye gis ngeen population yi ñoo ma fi téye te tukki xajatu fi kon foo leen mën a nekk ci seen i foyer ci kër yi ci dëkk yi maa ngi leen di nuyu di leen ñaaxaat ngeen jóg victoire yi ngeen ma doon jox depuis bi ma taxawee en 2009 ngeen renouveler ma ko la façon la plus brillante du soir parce que mon engagement avec la diaspora ne fait que commencer et le prochain mandat sera aussi quelque part un mandat pour les Sénégalais de l'extérieur bu loolu bëgg naa wax ci wàllu usine yi ak bërëbu liggéeyukaay yi Diourbel ku ne xam na ni ñi la SDID nekkoon mu ne société électrique et industrielle du Baol moo daan transformé gerte gi ñu si génne doorin di ci def colgate di ci def pâte d'entreprise di ci lu ne relance boobu laa bëgg a def avec la Sonacos pour que Diourbel soit doté d'une unité industrielle afin que jeunesse bi ak jigéen ñi mën a aussi liggéey ci loolu. Diourbel aussi nekk na carrefour benn Ila Touba ñu leen di defar la bretelle. il faudra que Diourbel Dakar benn waxtu mu koy def ba mois ba foofu chemin de mu ngi ñëw raay bi dinañ ko dekkilaat fii ci Njaareem renouveau industriel nag bu ma koy wax dafa bokk ci programme bi tàmbali naa ci parc industriel bi Diamniadio loo xam ne dama jël vingt cinq milliards suñu gouvernement defar loolu pour wane lancement bi réewu Chine président Xi Jinping ma ne ko dama extension parc bi il me faut milliards pour passer à cinquante aménagés avec plus de emplois mu d'accord ko signé nañu loolu Donc le renouveau industriel de nous tàmbali certes par la part industrielle waaye bëgg na région fi nga xam ne danañ fa am ay production wala di ko jëm gerte gi par exemple ñi produire mango ñi produire fruit comme waa Casamance danañu def des unités de transformation pour que benn mbéy dootu fi yàqu te transformation boobu mooy joxe liggéey pour la jeunesse mais xale yi pour ñu liggéey sans formation professionnelle ñu jàng industrie jàng commerce jàng processus de transformation loolu mooy le volet industrialisation du PAP 2 à 2024 kon mbokku njëkk ku gis lii bu ma ñaan rek mooy le 24 na ngeen teel a jóg dem woote ji ren yàlla ànd donc jóg seen kaaraange loolu état bi moo ko yor c'est sa vocation naturelle l'État a le devoir d'assurer la protection des citoyens et d'assurer la sécurité de l'exercice de leur choix. C'est la Constitution qui le dit et l'État prendra toutes ses responsabilités. Un véritable féminin qui se déroulait sur l'ensemble du territoire national sans eux donc bu leen kenn xoqatal na ngeen teel a dem ren teel a woote ñibbi dëgg résultat yi kon ma sant nag gërëm responsable Ndiarène di si jiital madame la présidente du conseil économique social et environnemental ma soeur Aminata Tall Mariam di Bawol di ko sant liggéey bi mu def avec ay rakam muy d'abord le maire de la ville de Diourbel Malick Fall. le 3FPT, notre frère Dame gouverneur du Tour, Moustapha Gueye. Muy l'honorable député Cheikh Seck du Parti socialiste. Sadio Diakhaté, député. Khadim Bob, haut conseiller. Maman Oumiba. ak François Fall du Haut Conseil muy sunu xarit Serigne Moustapha Abdou Wadoudou Wadoud Mbacké autant pour moi Serigne Moustapha mu lay ziar le béyee toujours muy le docteur Souleymane Soumaré muy Oumar Samb ak Mangi Nanga Mangara Number one, Suleiman Anba. Depuis Macky, dès le premier jour de cette campagne, le peuple sénégalais a montré son choix très clairement. Son adhésion, ce déferlement qui a été vu dans toutes les contrées, dans les villes comme dans les campagnes, manque davantage à rester plus que jamais au service des Sénégalais. ce sont les acteurs de premier plan muy les maires des communes du département du Diourbel ma bëggoon nañu ñëw d'abord ginnaaw maire du Diourbel on l'a dit muy le maire de Protégar Abdou Diagne le de Kër soft and humble way. Le maire de Ndank Sène Abdoulaye Sène waaw ah, kooku moom Sène rek la mën a sant Ndank Sène Abdoulaye Sène le maire de Ndindi l'honorable Cheikh Seck le Abdoulaye le maire de Tourambone Modou Faye jàpp naa ne day maire yooyu ñoo fi nekk may nuyu monsieur César ainsi que toute la coalition Benno Bokk et la majorité présidentielle di nuyu nag les grandes dames ici présentes jërëjëf